dafa mel ni euh, état du Sénégal situation def daf ko dépassé parce que affaire bi garaaw na graaw boo xam ne mais gisuma une communication gisuma une action d'envergure Euh, c'est la marine nationale qui se qui se qui se démerde euh, pour arrêter pour arrêter l'hémorragie mais au niveau étatique je ne vois pas l'État se saisir sérieusement et très profondément euh, de cette de cette de cette question-là lan euh, la dañoo dañoo amatul solution euh, est-ce que les projets yi ñu doon jéem a teg est-ce que doyatul discours bi doyatul c'est quoi cette qu'est-ce qui peut à expliquer cette fracture sociale la bu njëkk ba immigration clandestine jigéen bariw si woon aujourd'hui je vois de jeunes filles sénégalaises di di di embarquer des femmes enceintes et puis des, des des étudiants des gens qui ont quand même les moyens de de de de vivre ou de travailler au au, au Sénégal. qu'est-ce qui se passe. dañu wax benn kër goo xam ne vingt vingt quatre la ñu woon ñaar ñoo fa des. kërum lëm ñu wax ma dëkk boo xam ne gars yi dañu suul néew yu jóge woon ñu jële woon kii ci guddi gi am ñu dem. ñu embarqué waat. donc pourquoi gouvernement bi réagir tout parce que mooy dañuy wax nu vu ni su ni ko ni entendu. wala mu dépassé leen. daf leen daf leen dépassé. parce que pexe yi ñu waroon a mën a teg yëpp ay xëyu ndaw yi ay projet yi ñu mën a teg PSE c'est dafa mel ni dafa mel ni ironie bu s'il s'agissait pas de de tragédie ah c'est une dafa ironique pour que fu PSE bi waroon am les résultat yu ñuy waroon wax yi nga xam ne taux de croissance yi ñu doon wax transformation structurelle de l'économie le capital humain et le truc yooyu yëpp ci cëppaandaw gi nii fu ñu waroon délivrer foofu la la yàlla wone ni voilà le résultat de votre travail par euh, ci ci ci ci fànn koo xam ne amul werante gars yi préfère di dem xosaantoo du ne dañuy def tournée économique mais boo bëggee def tournée économique bu sérieux ci guddi yi ñu toll nii da ngay dem dajeeg boo yooyu laaj leen yaa ngi wax gendarme kii armée nationale mais c'est toutes les forces de défense et de sécurité boo amoon problème léegi boo woon boo demoon gendarme wala woo kenn dañ lay ne non ñoom ñu ngi ci géej gi di di di traité gars yi dem boo amoon problème tey jii nii wax nga sànq benn affaire bu am solo bu wane nii que service de base boo xam ne citoyen bi mu ngi koy xaar ci état moo tax nga nga war a am état nangu ni état am na nangu wéeru ci moom mooy bu ñu la agressé wala sàcc la dafa am sama benn ñees. dëkk Pout mu ne dañ sàcc téléphone am portable fàtte naa ci yan la dem xaw ma police xaw ma gendarme vingt une heure doon dox guddi c'est-à-dire <laughs> ko waxuñu eh, naka la demee extra massaw extra mais vingt une heure guddi la mais alors normalement dañu waroon toll foo xam ne chaque am na ñuy liggéey am na ñuy xëy am na ñuy wàcc am na ñuy guddee di dem di liggéey ci nga nekk di dem di xappi bu la neexee ci fu la neex te nga am sécurité boo demee Maroc wala Tunisie kenn du la laaj fooy dem guddi guddi kenn du jëye ko def gars yi dal sa kaw donc y a une forme de démission collective ci li nga xam ne état bi moo ko warlu woon mais société bi tamit dafa mel ni dafa xaw a démissionné parce que gis nga li fi xew nii ba ma nekkee xale train Thiès bu amoon accident sirène bee sonné ñëpp taxaw ñëpp te xam ni am na accident train peu importe ñett ñoo ci dee wala ñeent ñoo ci dee dinañ xam ne ah su am na suñu mbokk cheminot yoo xam ne boo moytu ak ñu doon voyager ñu ci ñu ci faatu et day rester pendant une semaine da ngay gis ni dëkk bi ñu ngi ci dëy dëy gaal mun na dem quinze personnes. ñaar fukk téeméeri nit dee fa ñu com continuer de commenter ci làmb gi ah wala ci match Sadio Mané bi wala pourquoi mu jënd FC Bourges plutôt que nangam sangam c'est que dafa mel ni que on ne fait plus état et société. on a perdu nos capacités d'ignation collective non on ne fait même plus société cest dire que li li li li li dal diw dañuy jàpp ni moom rek lay dal et puis man maa ngi régler sumay business à côté. que li dal diw mais suñu suñu ñàkk kaaraange suñu ñàkk farlu suñu ñàkk koom économiquement kii suñu tamit culture sénégalaise boo xam ne day teg pression lu bëri nit ñi fekk àttanuñu ko war nga war nga def lii war nga def lee war nga tabaski joxe di daaw gi booy tudd war nga nii collectivement on met tellement de pression sur les gens sur l'individu que am na ñoo xam ne mënuñu loolu il faut ñoom it ñu tekki comme ñeneen ñëpp il faut dafa am benn booy bu demoon bu ñëwoon sama kër militant du parti en même temps un peu kii ma dama bëgg a dem immigration. Nicaragua. non moom sax ci suuf si la jaar Maroc yooyu ma ne ko mais mais man suma grand frère li ngay wax ni dëgg la sama grand frère dafa des ma ne ko mais pourquoi yow nga bëgg dem mu ne parce que dëkk bi ñëpp ñu fay liggéey ñu fay tekki ñëpp. moo ñu dem sam papa moom mooy ne mais pourquoi yow it mais xam nga dafa am benn le point il était fan yee à Tanger nee e xam nga dafa am en fait jeunes yi dañoo jékki-jékki ñu embarqué wu waat sur cette voie là au moment où on avait pensé qu'on avait presque euh, réussi à démystifier le mythe de de de de de l'Europe xam nga dans les années quatre-vingt-dix deux mille Moodu Euh, nit bu nekkaan moodu moodu les moodu moodu amoon nañu doole euh, avec la crise économique il euh, y a une réalité de la vie de ces Sénégalais établis à l'étranger bu feeñ Covid bi ñëw participer davantage à la paupérisation de ces Sénégalais d'ailleurs sax am na moment boo xam ne les niveaux de transfert wàccoon na de manière drastique mais selon yow ban phénomène sociologique moo déclenché waat sañe sañe bu garaaw bi pourquoi les jeunes se sont remis à croire que euh, l'Eldorado est toujours là-bas alors que foofu ñoom aujourd'hui euh, ils font face au, au chômage euh, à l'insécurité euh, les, les les plans de les plans de licenciement euh, se se se suivent et se et se et se, et succèdent. xam nga boo demee Espagne wala Italie naam am am na ay jafe-jafe waaye am nga yaakaar ne benn bés yàlla dina dëkk. te ah, fii da nga amatul yaakaar te te te en général yàlla dina dikk te am na ay basique lekk naan ci di nga suturaa ngi fa am na ay organisation non gouvernementale wala ay secours populaire wala yu yu la ci mën a jàppale nga xaw a dund xaw a tuuti mais fii fii amatul yaakaar. mais si fii famille bi fii boo nekkee ci koñ boo bëggee lekk di nga lekk. fii kay fii kay sutura boobu. fii la ëpp yaakaar yàlla ñu yàlla denk réew mi dinañ jëkkaat mais xam nga yaakaar mooy problème bi mooy lan mooy boo demee kil benn yaboy ñu ne la 500 francs la xam nga benn yaboy moom famille fami bu mu nu mu mënta toll soxla na lu ëpp benn yaboy. maanaam boo yoree 2000 francs 3000 francs ne moom ngay dépense moo ngay jëndee dépense génnewoo ci ceeb ak diwlin ak yooyu defu ko dara donc Guédiawaye fee dama am ñu ma doon waxtaanal ñu ma dañ daan wax jaay fonde guddi mais tey midi dafa am saret bu fiy gaaree gars yi di rang di laaj fan la rang bi toll pour jënd fonde donc yaakaar boobu moo moo moo kii te loolu la ñu bëgg ñun bu ñuy politique ñu ne pas on n'est pas des des des, des vendeurs de de désespoir ah maanaam bu ñuy politique dañu gëm ni que Sénégal yàlla dénk nañu loo xam ne moo ëpp lu mu dénk Singapour loo xam nga ni Sénégal li fi nekk ci ay ressources zircon or ndox meeg nangam sangam géej gi pétrole buy ñëw bi Singapour amu ko trente kilomètres de large 40 kilomètres de long. ils avaient des, les mêmes problèmes que nous en 65 euh, chômage massif euh, jeunesse mais est-ce que jotul yéen acteurs politiques yi ngeen ngeen ngeen mu am genre sursaut national mais loolu laa foofu laay ñëw au lieu ngeen jël question bi di ko politiser di ci wut ay dividendes non je ne vous parle pas au lieu ñuy jël question bi di ko politiser di ci wut ay dividendes euh, ñu yéen leader d'opinion yi la presse le nu mu tudd les les religieux toutes les voix yi wax ñu leen di déglu ñu jéem a enclencher euh, benn dynamique pour waxtaanaat ak ak ndaw yi parce que euh, le choix de l'immigration ce n'est pas souvent euh, nu mu tudd de de de l'espoir qui ki qui ki qui disparaît. donc jàpp naa ni waroo wax ni ñu ngi politiser problème bi parce que. si am na am na am na ay hommes politiques. xam nga ñun politiser non dama ni jàpp naa ni waroo wax ni dañ koy politiser parce que amul lu mën a gën a graaw lii te. au-delà de drame bu mu nekk pour chaque famille man damay imaginer nit ban situation la mën a nekk toog ay guddi di calculer war naa mën a dem parce que du question fit kese day am loo loo rey ci sa xol. pour pour embarquer. pour mun a dem pour nangu ni war naa dem yóbbaale sama doom loolu bu dee ak ñun on est entré en politique encore une fois par empathie pour les êtres dem naa ba Fass booy mosuma ko mos ànduma fa ak télé ànduma fa ak rajo. waxtaan naa ak ñi ma war a waxtaan jàngat naa situation bi jàll mais quand bu du lii lu mel ni graaw amee suñu suñu der di yàqu ci àddina gi yëpp au delà de tragédie bu ci am maanaam chaque jour RFI kii espagnol yi français kii di wane ay sénégalais yuy débarqué avant dañu doon obligé ñu jël ñu par force yóbbu ñu foofu tey ñun ñooy volontaire pour dem au prix de nos loolu war nañu taxaw wax ci comme comme on di merci beaucoup Thierno e vraiment je pense que on peut pas terminer sur cette note là parce que loolu du lu ñu yàlla natt bu ñu yàlla teg du loo xam ne mënul deñ boo tax ma wax sànq Singapour wax ay yu mel ni Cuba wax ay yu mel ni bu la neexee Corée wala République dominicaine am nga République dominicaine ak Haïti ñoom ñoo dem bokk pratiquement nuroo lépp fii mu am démocratie am ay gouvernants yu vertueux yuy liggéey réew mi dem fii mu am ay caaxaan yu yàgg depuis le docteur Duvalier ak son fils ak gis nañu ay ki fu mu fu mu mujj Cap-Vert a ngi nii doo fa dégg immigration clandestine te Cap-Vert 74 la ñu am indépendance te pourtant la te fii moo doon seen pratiquement. seen Eldorado. Eldorado 74 lañu seen indépendance mais dañu taxaw liggéey te amul dara il bu il yu wow la mais dañu taxaw liggéey discipliné sérieux am ay dirigeants yu visionnaire yu nangu ñaq pour seen réew réew mi avancé. donc war nañu mën a avancé te dinañ avancé. so yes we can. Absolutely, on termine par le slogan uh, de, and we'll do it. Yes, we Yes, we, Yes, we'll <laughs> okay. within 25, within less than 10 years. It's less years. Less than years. Uh, this, country is not uh, that poor. Et, nous sommes pas damnés par Dieu ni damnés de la terre. Nous pouvons. C'est la seule raison pour laquelle je suis en politique. Parce que sinon, je, je serais dans le confort du gouvernement, par tout ce je pense qu'il y a un autre avenir. Un autre Sénégal.